مولها إلى بلا مناهي منايا على النهاية بسم الله Bienvenue sur Sud FM. Bienvenue, bienvenue sur Sud FM. bismillahi rahmaani rahim. rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. su defee seen rajo seen jotaay mu tuddee alkitab ngeen koy am yoor-yoor ak mu jot waxtu wi. dellu si na jëloon ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk alxaaj al imam al oustaz Alioune Mbaye seen mbokk alaaji Serigne Mbacke Sylla ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw bi ñu sante sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonent bi salaam ñaan jàmm ci réew mi ak réew sama gars yi ngi nii ci studio bi bëgg ànd ak yéen incha allah 9h ba midi tabarakallahu oustaz Alioune a ngi nii toog sëñ Mbacke Sylla a ngi nii oustaz Alioune asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. alaaji sëriñ Mbàkke asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. nu bàyyi leen ngeen nuyoon te gooy déglu yi. barakallah jërëjëf oustaz ñu fay la nuyoo nuyu réew mi ak bitim réew beral nuyoo sama cousin bi sëñ Mbàkke si la ñaan nuyoo bi yàlla na fekk ci jàmm ak salaam. Haji Mbàkke. jërëjëf oustaz ñoo ngi lay fay nuyoo te di la nuyu di nuyu mboolem ñuy bàyyi xel ci defem seen rajo di la siyaar ci àjjuma ji di fay nuyoo tey nuyu imaam alxaaji oustaz Alioune Mbaye borom Pikine ak Dalifor ak Kër Massar ñàkk ak ñàkk borom dalifoor ak ñàgg nu jotaay bi tëddee incha allah oustaz lañ ko doon defee rek fas yéene wéyal def ko ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi la santé déglu situation du suuf ci corona bi bu ñu fa jógee ubbi téléphone bàyyi mbokk yi indi seen laaj bu nekkee bitim réew ñooy woote ci 33 841 li ñu ŋàbb nag ki ci bëgg a jot ñu fàttali ne duñ mën a jël suñu yosi bopp yi dañuy may rek ba midi mooy la kaar incha allah Bienvenue jëf sama gaa yi jërëgeen jëf ñu set déglu ci bit ci biir mi jërëgeen jëf ñu déglu ci bitim réew gën def ñi nga xam ne jamono ji ñu ngi ànd ak ñun ci YouTube bi ak ñi nga xam ñu ngi ànd ñun ci Facebook bi ci yooyu nga xam ne Sud FM seen rajo ay bunt la yu mu ubbi tàmbaleen nuyoo bi ci jaaykati xëdd yi ndax loolu la ndaw ko ndaay wax yéen jaaykati xëdd yi asalaamaaleykum teg ca sëriñi daara yi ne leen yéen sëriñi daara yëpp asalaamaaleykum teg ci yaayu daara yi ne leen yéen itam yaayu daara yi asalaamaaleykum daa di nag tuur tànk yi dongoy daara yi tabaarkàlla lu ne ña koy daj ci daara yi waaye nag di courage ndax li ngeen di wut moo yombul ndongoy daar yi asalaamaaleykum marsa ambilaay wala bitig mbagg yi yéen itam asalaamaaleykum gone nekk ci parking yi tey faxasal nit ñi seen oto di leen ko raxasal entretien ko ba noppi laaj leen léeg-léeg deux cent léeg-léeg ilimaan yeeg notable yeeg chef de quartier yi yéen itam asalaamaaleykum gouverneur yeeg préfet yeeg sous préfet yi yéen itam asalaamaaleykum magistrat yeeg avocat yi yéen itam asalaamaaleykum entreprise yeeg société yeeg bureau karaat yeeg ñëpp kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu ne la asalaamaaleykum taximaan yi moo xam clando la moo xam jaune noir la yéen taximaan yi yéen tam asalaamaaleykum tabarakallahu kon di ilimaan yeeg notable yeeg chef de quartier yi asalaamaaleykum saa si nga xam ne ñu ngi jamono ji ñu ngi ci rajo yi ñu nekk ci télé yi tabarakallahu ñu nekk ci euh, ñu koy tuddati réseaux sociaux yi di jàngale asalaamaaleykum mason yi nga xam ne tabarakallah ñoo nekk ci kaw di raax ak defar ak teg yu biir yéen maçon yi asalaamaaleykum carreleur yi asalaamaaleykum waaw waaw Amadou Dia moom ca carreleur yi la bokkoon waaye dafa màggat léegi <laughs> ñu ngi ko nuyu baax a baax di nuyu karaloor yëpp asalaamaaleykum boulanger ak boulangerie yi te mooy yëngatu ci mburu ndaw ko ndaa yi ne nañ ñu leen di wax asalaamaaleykum safooru tata yeeg Dakar dem dikk yi yàlla na ngeen yàgg dem dikk ak senegal dem dikk yi yéen ñëpp asalaamaaleykum nekk ci station yi di entretien nit ñi oto yi ak di leen jaay gasoil ak essence ak yu ne demee asalaamaaleykum. waa bitim réew ak fu ñu mën a nekk di ay sénégalais yu nekk foofa fu ngeen mën a nekk rek yéen ñëpp asalaamualeykum nuyoo baa ngi ci loxol Pape Mor Diaw xam ne jamono ji ko dem ña ngi teg tàndara ma ñoom di fas yéene dog ndax noonu lañ ñu rawee yéen ñi ñuy déglu Allemagne Kutantak Doora Sila Khalil Kane ak ñu ñuy déglu ñëpp ci nekk ci France ñoom Roger asalaamaaleykum sunu xarit sunu am di jàmm Maam Mor Jàppa Duwaa Maam Mor asalaamaaleykum loo nu ñaanal yàlla na nangu luñ la ñaanal yàlla na nangu xaaji Maam Mor yoonu ndaw moo dul gaaw waaye nu ci war ni ñun ñëpp tabarakallaahu takk nañ suñuy bagage fas la yéenee seet si ñuy sunu gaan gi Serigne njaay tabarakallahu di ko jox ciir bu baax baax àndandoo oustaz Alioune Mbaye la mi ngi nii toog asalaamaaleykum kon daal yéen ñëpp fu ngeen mën di nekk rek biir réew mi ci bitim réew asalaamaaleykum ministère yi ña ca nekk euh, assemblée ña fa nekk ñoom ñëpp asalaamaaleykum yéen tam les policiers et les gendarmes asalaamaaleykum yéen ku leen nuyu nag li nuyu ne ndax ndax ne tabaarkàlla da ngeen di sanu léeg-léeg te taxaw ci télé bi jeexal nag ci les sapeurs asalaamaaleykum bu ngeen xoolee seen montre heure bi daan jot jot na ñu war a wàññeekuwaat dellusiwaat nag ci sama gars yi daal di tàmbali jataay bi nag tabarakallahu ànd ak ñoom ci yëf yi macha allah. Oustaz Alioune asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa allah nuyoo yi am na solo lool sëñ allah dégg nga bitim réew fépp <laughs> fépp. bàyyi woo benn secteur. déedéet. sa xarit douane yi moom ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi yéen leen te nuyoo. waaw nuyu naa leen ndeysaan. te nuyoo ba ci loxol colonel Issa. ndeysaan Issa Ndiaye Issa Ndiaye ak les anciens gendarmes. walaay ndeysaan. ak bu takk der yëpp ndeysaan. dëgg la de. barakallah alhamdulilah. alhamdulilah sëñ Mbacke. walaay ndeysaan am na solo de ñooñu day ay jàmbaar lañ lool. <laughs> Eh, ñoom colonel baabakër mbay <laughs> mooy jiite eh, raison bi ci wàll woowu <laughs> ak ak duwaañi yu bare bare léeg-léeg ñu yóbbante ñu nuyoo ci oustaz waaw ñoom dañuy waaw ñoom man kay wax daal tëni mooma te nekk duwaañ ndeysaan aha <laughs> tëni rek mooma manqué dëgg la am na am na sa benn xarit duwaañ bi mooy wax loolu ah. sëñ Daawuda Sàmm bu bu mool euh, mool huit waaw ak saa si li waaw ñoom ñu ngi foofu waaw ñu ngi ànd ñu ngi ànd ñoom am na fa jàllo it ñoom abdurahman si bi ak ñoom si bi wallaay ndeysaan macha allah <laughs> waaw ñu ngi koy tubaarkàl la est-ce que est-ce que <laughs> ñoom daal duwaañe yi ah. kenn laaj xam moo ci ñàkk moo ci ñàkk solo waaw Cerno hmm. Sekk la tudd ah Thierno ah Oustaz Thierno jàmbaar la. léegi léegi waay ko wax <laughs> ah. Thierno kon moo yor ah, mu yor. Ah, moo yor ah. la euh, fële la <laughs> ko ñàkk solo. <laughs> est-ce que leen ko gis nga kii jaay la. ci biir. bu leen ko waay mu jàll. Eh, loolu lay waxal. wax naa leen ko de. mu ne naa wax du waa ñuy seet ba sama sori sunu sunu waajur wu góor najaayam la. ah ndeysaan ndeysaan ndeysaan soo ko su doom bàjjen mënu fee weesu kay. est macha allah. <laughs> waaye daal gars yi daal vraiment nii ñuy ni ñuy émission bi daal. dëgg la am na solo lool wax dëgg yàlla alhamdulilah. barakallah di jaajëfal sunu gars yi fi ñëwoon nag defar reportage boobu. waaw waaw ndeysaan ah, jaar na ci yoon de. waa Dakar Actu waa Dakar Actu. yàlla moom tubarkàlla. waaw ah, gërëm leen bu baax a baax a baax. dinaa sax juróom yi ne dañoo bëgg ñoom ñoom tamit def noonu. ndeysaan barakalla <laughs> walaay ndeysaan. leen di jaajëfal ndax sotti ceeg def ci la liggéey bépp ñun ñëpp noo ko bokk. dëgg la dëgg la alhamdulilah. Ah, sunu directeur moom mooy sunu directeur rek. ñu ci roq soos rek di li jëm ci di indi. <laughs> bàyyi soo accès rek bàyyi. <laughs> macha allah. waaw yàlla na ko yàlla mën a jàppale. moom daal moom mu ngi noonu rek. ndeysaan léegi mu ngi leen di nuyu. Eh, Serap Fat si defee moom Serap Fat. waaw waaw waaw. Ah, mooy maire bi koy wax ci jingal bi. waaw <laughs> moo ko soxna si doon jàll ji démb bu ñëw dëkk. ah ndeysaan. <laughs> ndeysaan ndeysaan. Serap Fat moom eh, Serap Fat Fatmata Sow laay. Ah, waaw noonu la noonu <laughs> soppee si dëkk yi. bien fee weesu. macha allah soppe de ci am ñu baax ndeysaan waaw ah, macha allah mu ngi koy baarakallah rek yal na yàlla defal leen jàmm amiin ñu bokk ndeysaan oustaz maa ngi lay ndokkeel jërëjëf ci ramadaan bi ndeysaan eh, nga danga naka tafsir yi déet wala ci di la masaw <laughs> waaw waaw masaw saa boobu <laughs> ah fukk juróom-ñeenti fan ak ni añu ma allahu akbar waay waay kon kay jar na masaw masaw waay masaw merci merci man nag man man <laughs> waxal ma waxal ma xanaa masawu ko rek ndax looloo lu metti la. ah nga xam ne añoo. juróom-ñeenti fekk ni bàkke ayuba ay ma merci kenn mosu koo gis daal mais moom koor nag moom koor koor koor koor kenn tudde ko doom de ah sëriñ Babacar si nee na xaw ma lu xam waaye am na dangar am na dangar moom <laughs> koor waaw sëriñ Babacar si moo ko daan wax rajo la taala anhu xaw lu xew de ñu ne waaye mu ne waaye am na dangar baarakallah wax na dëgg. am na dangar de xiif xiif ak yooyu. waaye nag dafa neex. waaw gaaw a jàll. moom daal tubaarkàlla. dëgg la de. neex na da ngay yëg ci sa ruux ne neex na. Mm-hmm. yëg ci sa entourage ne neex na. Mm-hmm. yëg ci sa njaboot ne neex na. yëg ci say àndandoon ne neex na. Mm. yëg ci penc bi ne neex na. Mm. neex na de. am na benn xaalis boo xam ne oustaz eh, dama ko dund. Mm-hmm. ndax li saa yi mi farxataane. waaw. waaw wér na jëng <laughs> ina iftaar way na li xay rab yi waaw xam nga ila xay rab bi amagul mais buñ toogee ba waaw ina iftaar ba ñu installé ba xale yi toog njaboot gi toog ñëpp toog ñuy xaar Oustaz Alioune Sall ne bismillah <laughs> loolu day neex de ah xaar boobu da dàq waaw xaar boobu neex na waaw film bu neex la. ñu commencé di indi kii nii. ñu xam ne fi ak 5 minutes fii ak 4 minutes da waaw loolu kay. loolu koo neex. ndeysaan <laughs> ay mbay. <laughs> naan ndogu a dee métti. waaw <laughs> ah, dee moom. xam mu waaye waaye ndogu. Mm. neex na waaye waajal ndogoo neex. yow buñ demee ba rangale gone yi ba këpp kaas ak itam nga xool ndeysaan euh, ki woor ba toll si foofu desi ay minute di xaar minute yi mm. desi ay minute di xaar minute yi mm. loolu na waar mm. sa ko war ngaa wax ci am na jàkka yoo xam ne nga naan lakka sum sami bismillah <laughs> ah, <laughs> waaw xam nga loolu li koy waral mooy <laughs> euh, penc mee dajeegut ci benn heure julleeg benn heure yooyu moo tax dangay toog fii jàkk jële salaatu ñu toog tuuti jële salaatu bu dem ndaw ko ndaa ji mujj salaatu lay xaar day hmm. ah, xaar ah kar karmet baaxu bu fekkee dañuy dog nga xam ne ko kii day jëkk bisimilah doog jot na kooku la ki njëkk koo wax kooku lay xaar la xaar hmm. ah yërmande la nag ah, ndax alayhi salaatu salaam daana wax ne sama ñaari noddkat yi hmm. bu ngeen déggee kenn ki mën ngeen a continuer di lekk waaye ki ci moom bu ko déggee rek bàyyi leen macha allah wa shukran mu keedi ab bilaal keedi laa Abdoulaye ibnu Umm Maktum ndeysaan macha allah mhm. barakallah si mbokk yeeg naan am na solo am na solo <laughs> am na solo lool dog de moom tubaarkàlla mhm. ak yooyu yëpp rek xam nga sax daa mel ne daf man daal xaw ma léegi dañoo damay bëgg a nekk mag wala dara mais daa mel ne dox sax dafay gënoon a neex xam nga oustaz bu ñu daan waaj a ndogu xale toog di xaar ñu naan ko danañ la xelli lak defal ndànk noonu <laughs> wala jamono nga xam ne doo yor mburu boo muy tut gerte ngay doge eh, gerte caaf ak yooyu damaa defe xale yi nekk Jurbel nga nekk fii nag moo ko xaw a kii ah. waaw la mais bi ah. léegi mi waaye mi ngi neex ba léegi ah, tey wàllu gën a amul baa ngeen ba léegi kon xam naa <laughs> waaw waaw xam naa li ngay kon <laughs> kon kon xam naa li may dogoo ci télé bi la kon man daal baax neex wax nga dëgg de kon nag am mbir yi bu ma ko natt sama bopp en tout cas mu neex na lool de. xam nga di ndogee ca baay Fall ga moom bëgg a nat ndogu nit ñi affaire àdduna nag man danaa teey day soof ci yow ndex mi ngi saf ba léegi. ah oui ah, non c'est que. vie eh, eh. de famille daa neex de. la <laughs> ah. gone yi rek mëpp gi rax rek gars yi ku ne song affaire yi. ndax yàlla am na solo lool de. tey barke yàlla yàlla barke bu dee ñu ci gën a tudd nag papa ma bi saab ji coow. xelil ma fii coow li ñu gën a ndaw. ma <laughs> ne wóoruñu waaye bu dee ku munta yar waaw foofu lay yàq lu bari ah. waaw day dóore ñi munta yar suñ mbàkke waaw foofu la ñu yàq lu bari ndeysaan waaye jógleen faa yéen kenn mun fee dog ndax yéen non wallaay ëpp nay wax wala da yàq bi saab rek mm-hmm. waaw hmm. kenn du na wala leen woon waaw wala leen woon <laughs> waaye ba gaa yi wóor ba pare loolu kenn du ko def eh, dëkk leen xel rek waaw oh, macha ndax yar lu jafe la mm-hmm. boo ko laajee ñoom bindu Cheikh Seck. dëgg la ca ca daara ja wala boog ñoom. ca daara ja li ci des nu mu tuddati. mooy Marème Marème ak Aïda Marème ak góor ñooñu la ñooñu bëgg wax. Marème et Aïda. waaw seet bala laajee éducation lu jafe la. waaw ñoom dañuy waxtaan ci gone lu xóot léeg-léeg. waaw waaw mm-hmm. mais nag daara ji en tant que internat. Mm-hmm. naka ngeen di ndogoo. waaw ndogu lu neex. Mm-hmm. dafa am dafa am mboojaa yu dul woor. waaw te ci kanam tuuti lañ leen di jox seen añ ñu añ. boo fa jaar ñu naan ma kaay ñu añ <laughs> waaw kaay ñu añ ak wax <laughs> wax ñu bon appétit cool na kuro <laughs> léegi ñeneen ñi nga xam ne ñooy woor nag ñoom bu tibis bu bu dog bi jotee góor ñi am na fu ñuy doge ci ci seen cour jigéen ñi am fu ñuy doge ci seen cour hmm. waaw andi leen tendrement mburu nangam nangam affaire yooyu bu fee waaw macha allah ko defee bu xëdd jotee ñu yàlla ñu xëdd hmm. waaw xam ne ñoo xam ne da nga gis gone gu tuuti tuuti duggul ci koor gi wallaay dëgg la man mosumaa gis lool. Eh, am nañu gone am jom. ci biir Chaabaan bi nit ñëw ne may ma la ma ndogo ma ne koy lu xew mu ne damaa wooran ma ne waaw. yàlla xam na ko. waaw ña nga ca de macha am na solo. Eh, alhamdulilah yal na yàlla gën a barkeel. amin amin waaye mais en tout cas mouvement bu neex la. waaw boo xam ne dana am solo climat daal bu am solo la. waaw waaw. Euh, léegi nag oustaz li ma xalaatoon ñu waxtaanee ko sëñ Mbacke. waaw <laughs> yaa ngi ko comme doyal nga ci ndogul yi <laughs> mën ngaa jàll. waaw <laughs> ah, Mbacke ba mhm. mu daal xam naa ci wàllu solidarité laa bëggoon wax. ak mhm. dimbalante. isa ndax tam yaakaar naa ni luy jot jot na ginnaaw dee. Mhm. ah gumba neex na baat nag jënt bi sono ndax weeru promotion la ñu nekk. te daa nga wax ni technicien de tuyaaba hmm. ak promotion de tuyaaba hmm. il faut que nit ki di ngay da ngay seet ku am technique ci wàllu tuyaaba nga waxtaan ceeg moom hmm. euh, oustaz lan ban mooy lan mooy njëriñu dimbalante ci weeru koor jërëjëf dugg nga fa am solo maa ngi nuyu sas imaam Momar Seck mi ngi lay laajte euh, dégg naa jamono yi bu ñu ci nekkee waaw ma nga ak ñun waaw loolu de waaw <laughs> dégg naa léeg-léeg jóg xaqtaay ba taxaw allahu akbar ndeysaan <laughs> daanaka ni ñu sonni fi moo na muy sonni foofa karaw al mufti la tudd nun ma al mufti al mufti <laughs> al mufti yàlla ñu ko yàlla defal tawfiix Oustaz Alioune uh-huh. solidarité bu fekkee li li li alquran di wax uh-huh. a taawun moom la uh-huh. lu am solo la atadaamun eh, ah, ataawun mm-hmm. mooy nit ki dafa am lu man ak lu mu mm-hmm. ñaar dañoo dëkkoon Grand Dakar jenn silmaxa ak benn lafañ dëkkoon kër góor gi Ousmane Diop mm-hmm. mu yoral leen yëpp yàlla na ko yàlla yërëm amiin nu génn fenn mu leen jox añ reer ak ndékki néeg waaye xam nga li mag di man doom yi duñ ko man hmm, hmm, hmm, bu mag wanee ginnaaw rek waaw widd am widd am léegi ñaar ñaar daal di waxtaan silmaxa beeg lafañ bi ñu waxtaan ci kaw na ko silmaxa bi di boot lafañ bi di ko tegtal yoon yoon wi allahu njëkk a gis yaram dafa daw mu fat ko si mu fat leen këram loolu mooy solidarité ci bi kulli maanal kalima kii li mënut ki ko man indi ko ñu bokk rek rek lu lay solidarité suñu mbàkk ndax kenn mënut lépp nag déedéet te saa bu àdduna doxee loolu doo nga ko doxal nag dëgg mooy li nga man def ko li nga tële ñu defal la ko ah li nga man def ko li nga mën li nga tële ñu defal la ko hmm. moo tax baat ba ne wataawanu defalal waa ji lim li nga li nga lim tële mu defal la li nga tële mu encadré rek na ko alal birri nag wa taqwaa waaw alal birri wa taqwa li nga yor ci mbaax fexeel ba wàll ko ku la jege lam yor ci mbaax mu wàll ko fexeel ba li nga am ci taqwa muy jom nga wàll ki la jege moom tam wàll la ko ci bu ñuy firee taqwa ragal yàlla bu ñu ko firee jom mm-hmm. waaw na ma ustaas baal donc lu am solo la mm-hmm. suñu yonent bi dafa ne benn bis abu moussa mu naa ah, mun ne ko yéen ma neex mm-hmm. ashari yoona yi yéen yéen a ma neex man ci yéen laa bokk xam nga ne mu ne ko nga lan mu ne ko man ci yéen laa bokk yéen ci man ngeen bokk abu musa keroog yaram mi daw ndax yonente comme xool na ci yéen la bokk allahu akbar salaamaaleykum abu moussa jaxasoo mhm. mu ne ko lii ma neex ci yéen ba ma bokk ci yéen te boole leen ci sama bopp mooy ni ngeen di doxale moo ma neex mhm. seen solidarité mhm. te ñooñu sëñ Mbàkke ba addunuy tukki man déggatuma ñu mel ni ñoom xam nga cil ma xam mbaakol tey bu génnoon ca mbedd ca ca dëkk ba daje ca jumaa ja képp ku ne ca dëkk ba la ca la ne la nekk sa kër ci xaalis nga indi ko. Hmm. bu ñu ko séddoo kenn du ñàkk. dëgg la ñoom nu lañ doon def ñoo am Moussa ñoom. xoolal taseet googu rek. waaw tey nga dem waa taseet ñëpp daje. ñu ne ne ku nekk indi lim am ci këram ci ceeb. Hmm. ka ñaari saako indi. ka deseb kilo indi. Hmm. ka yor barigo indi. ka yor ton indi ñëppay am ceeb de. ñëppay am ceeb ñëppay am ceeb. danañ añ incha allah. kon de kon de dana gën a baax. dëgg la. dëgg la soo saa billaay yi fi am yàlla joxe na de ah. mais ñi yor te kott moo tax hmm? waaye bu doon ko joxee ko am génnee ah, ah. hmm. léegi solidarité googu nga wax moo manqué hmm. nit yor lu ne géej di kopp koppal ba xëy wan ko ginnaaw li jënti de dina ticc loolu coow ni kur nga dëgg waaw moo tax euh, am solo lool te mooy kii daa am lu mu tëlee ci daara dañ ko doon jàngal sëriñu daara bi day am ay dongo ñu xëy dem tool bayal ko sàq bayal ko gerte bayal ko ñebbe mu def ci ñoom alxuraan def ci ñoom yarub diine yóbbu leen seeni bokk dëgg la loolu la mi bañ léegi la dëgg la ku fi yebal sa sa sa sa taalibe euh, tool mm. fa lañ ko fekk ramas ko yóbbu amatuñ ci kersa. léegi njàngale moom ñu doon jàng nag muy tàmbali wàññiku ñu commencé dundu bopp sa bopp. kenn ku ne dundu bopp sa bopp. su boobaa solidarité bi du am. dëgg la ci jeexal bu koor gi jeex xoolal njëkk-njëkk rek nag kenn ko ne na joxe euh, muddum koor. soo ko na tontee ci huit cent francs. treise million personne ay milliards la. ay milliards la. su daje woon dem ci ñi ko soxla léegi tey ñu lu bare bari duñ ko soxla seen ajo faju ci wàllu googu dëgg la donc jërëjëf ci sa dugg ba am solo beeg foofu nga dugg tey muy solidarité te daa mel ne it oustaz noonu la ci lislaam soññi xam nga mhm. buñu demee ba naan booy yokk booy togg sax loo xam ne ak ndawal ak yooyu yokkal ñeex mi waaw wala yokkal ñulug bi ngir mën a yekkale waaw yekkale ci xeetu solidarité la bokk ci ci xeetu solidarité la bokk ndax mhm. ki nga dëkkal mhm. léeg-léeg nga dëkk ñaar ñetti nja jàpp ñeent. Hmm. am na koo xam ne. daf laa waxu dara. waaye hmm. taalul cin tey. dëgg la te nag oustaz daa mel ne foofu la gën a méttee maanaam ñi nga xam ne mënuñoo laaj ba noppi te dañoo loru. te daa mel ne loolu itam dafa bari ci pénc bi. boo gisee bi yàlla joxe. Ah. azaka. Hmm. bi muy joxe azaka. ci ñuul ñu la tàmbalee. bi mu joxee mu dum koor mu tàmbalee ca ñee. innama sadaqaatu. lil fuqara foofu la tàmbalee. koo xam ne mi ngi bëgg a nu mu tuddati waaye mënta laaj kenn. am am am na lem am doyu ko munta laaj kenn. Mm. te léeg-léeg dañ koy laaj léeg ñu gis ko sax jàpp ne kii jeexalu dara. te soo demoon na ko am yàlla jox la jabaram ñibbi. allahu akbar boo demee ne ko yàlla jox la. jabaram ñibbi jabaram ñibbi. ca mm-hmm. mm-hmm. yàlla lu métti la. Mm-hmm. moo tax sunu borom ne tàmbalil foofu lil fuqara. allasina usuru fi nangam nangam ba la la la laa yasalu naas ilhaafa taarifuhum bi siimaahum nag yow yaay comprendre ne kii kii laay sën ah. nga nga nga woo ko wala nga buux ko wala nga buux ko moo tax ci ci asaka sunu borom daan wax yonent bi demal jëli ko séddale ko mm-hmm. ndax yow doo jox kenn mu déranger ko mm-hmm. mais nit ak nit en tant que nit nga ñëw ne ko am yàlla jox la. Hmm. Ah. jabaram ñibbi. dëgg la dëgg la mais sax ci ci wàllu di soldat bi sëñ Mbacke. Hmm. Euh, xam nga démb la président doon woote fële ci emploi des jeunes ak nangam nangam. waaw mais est xalaat nga ni dina dina woo religieux yi laaj leen lislaam lan la lan la tëral ci wàllu xeex tey yooyu xalaat nga dina ko def. waaw waaw cofal nañ leen tuuti ca jataay ba. Hmm. doyut nag. gis nga solution yi fi na fi nekk nii. li ca daara am ci solutionner problème yi lu dool daara amoo ko waaye li oustaz Mbacke di wax démb bi ñu wootee la ëpp ca ndaje ma làkki tubaab la loolu dama na ma ca loolu donte am na ay paragraphe yoo xam ne am na wolof mhm. mais ëpp ca ndaje ma làkki tubaab la wala daa mel ne waa France lañu doon waxal mhm. ndeysaan loolu suñ cat la ba léegi ba léegi suñ cat la xale yi doon taal bëgg démboo njaay dëkk bi di lakk la ko réglé mooy langue nationale bi kon bu nee ba wootee foofu lu mel na loolu ñëpp ñu ne ko ñu lakki kay tubaab bu mu jeex tàkk léegi nag ndaje ma am na yaakaar am na yaakaar waaye nag sas alin wutal nit liggéey sàmmal ko liggéey moo ko gën a yomb jox nit xaalis ne ko demal liggéey ne ko yokkal lii ci li nga yor ko gën a yomb hmm? Hmm? Hmm? Eh, maa ngi nettali barki démb alayhi salaatu wasalaam ba muy ker yàlla waajal liggéey ca jàkka ja la ko fekk mhm. te te te joxu ko financement mhm. lu mu ko jox ci doolee waa ji la la jëlee financement mhm. ndax da ko seen muy yalwaan mu teelu ko ba mu am 1500 mu ne ko nongali kaay mu ñëw loo yor mu ne mille 1500 am nga jabar mu daa ah mu ne ko yët ko 500 bi ngeen ciy dund ba bis bi del si <laughs> ana beneen 500 mu ne waa mu ne ko defal ca sa poche jox ma ñetteel bi mu jox ko mu jox ko seen naa la ne ko dama wuti ko ca marché ba mën a taxan na ko demal taxani waaw waa jee taxan ba bis ba del si ba mu ko jaayee am na lu ëpp 1500 yi mën ca jàkk mën na ko nii nag moo gën dem ca àll ba taxani yenn ko ci sa gannaaw gi ñëw jaay ko mm-hmm. moo gën di laaj nii ñi bu la joxee baax na bu la joxut baax na lu moom baaxul dëgg la dëgg la kon kere ma ci yooyu te li ci li ci daara man Oustaz Mbacké mm-hmm. lu dul daara mënoo ko dëgg la fan la see Serigne Cheikh génne. ci daara ji fan la Ablaye Dia seeni koo génne. ndeysaan ci fu mu génne. ci daara ji ah Alioune Lo mais maam Diarra fu mu génne. daara foofu ci lim pour wax la rek. dëgg la de booy doon lim koy ndax waaw ndax daara ni mën a def nit. Mhm. ba mën a bokk ak i bokkam. Mhm. te ku bokk ak say bokk loo yor yaa mu sakkan. Mhm. la. ku bokk ak say mbokk loo yor mu sakkan waaw waaw wallaay ndeysaan te itam yor loo xam ne doo ci jënd loo bëggut hmm. mu sakkan dëgg la loolu yor na ah? hmm. yor fu ñuy liggéey ñoo xam ne doo ci lekk ak jàmbur hmm. mu sakkan dëgg la xam nga nañ ma baal nag ci ci publicité bi Ablaye Diaw waa Sindiko yi nu ñuy def restaurant ba ñuy añe ma ngi ci biir bu doon tey ba ñuy ndogoo ma ngi ci biir ba ñuy xadde ma ngi ci biir ndeysaan bu ajuma dégg naa kenn du fay ajuma. Mm. da ngay ñëw commande loo loolu la neex. boo ci boisson ak lëwal ak deuxième. sant Alioune <laughs> ma dem te ñëw. <laughs> yàgg naa doo fa yàgg. du ma fa yàgg. demal te ñëw bu leen doxal seen i dëgg loolu daara dong ko am sëñ Ba. wallaay wallaay ndeysaan dong ko am. dëgg la bi ci la nekk nag. dëgg la alif laam ra. tilka ayatul kitaab. dëgg la wala bokk. inaan uh, inaan sana il kitaaba li tuxrija naasa mina zulumaat ila nuur ca bopp Ibrahima bi ay solution jeex na kon ñun am na solution masha Allah dañ ko bàyyi muy nelaw nag Oustaz Alioune Mbaye nee na fi ma jëm bu ma fa yàgg kon du ma fa yàgg insha Allah